noonu la Viviane moom suñu mag la suñu xarit la bii ko bu nii mayee doomam c'est normal mhm. man dama tukki woon sama dama arrêté yëpp ñëw ndeysaan Viviane moom ku ne xam ne la suñu Viviane la mhm. suñu mag la suñu xarit la mhm. macha allah démb ñu gis la ci ci sa sinap ñu ci bari ci yow lañ ko seetaanee préparatif mariage bi relation bi nga am ak Zeyna lan la Zeyna dafa nekk xale bu baax nekk xale bu baax bëgg ñu comme ni ñu yaayam bëggee mhm. mu ñëw gis na ñun dañuy ànd ak yaayam vraiment mu nekk nit ku baax ku nga xam ne xale bu baax la daal comme ñu fekk jox ñu suñu cër mhm. moo tax su xewlee ñun dañuy bàyyi sax ba jour bi ñu mais fan yi yëpp kër Viviane la ñuy yendu fa la ñuy fanaan parce que ñu ko jaral mhm. euh, ma leen di ñaanal nag sëy bu barkeel bu baax a baax aadama bi itam nekk sama càmm bi nekk nit ko wax waaw bi il faut nga jox ko li nga xam ne loolu la delloo mooy cër bi mhm. cër rek moo fi nekk Viviane mhm. daf ñu jox cër kon faaw ñu delloo ko mhm. ñëpp gis la nga jooy ci Zénith de ñu koy waxtaanee lan moo tax nga jooy waaw xam nga man émotion bi rek <laughs> dafa nekk sama nit nekk sama frère nekk sama xarit donc bu ñëwee balance euh, bu ma fekkoon maa ngi nelaw sax mu ne ma mbaatu ñu dem balance ma jug dem balance comme ni ma mel après Sidi di ko woy ne ko bi may ñëw ci yow yaa ma ne woon ma génneel album yaa ma ne woon ma defal lii yaa ma ne woon ma defal laa yaa ma ne woon ma indi Zénith mhm. indi nga ma fi mhm. Matar jooy man teg ma jooy nga <laughs> merci beaucoup

waaw xanaa sant yàlla di julli Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sang sang yi sant Seexul Xadim di kontaan te yàlla ñu dugg bismilaahi rahmaani rahiim yàlla ñu ni ko suñu borom bëggee rek ñu defee ko noonu ndax yàlla suñu borom mooy wax bu dee takk la nañ ko siiwal ba mu si ndax ñëpp jot te tubaab fakkaat la macha allah. looloo war ndax koo xamul na nga koy def nam la defa tax te Viviane sama rakk la sama doom la sama jabar ma koy ñaanal moo xalaat bu yàlla nañ fekk lépp te ko ci bisu Seyna bi ndax Seyna xale bu yaru la xale bu bëgg yaayam xale bu fonk yaayam yàlla nañ dund ba di fi ngénte ngeen il est gentil am naa kii moom ma ko jox macha allah. tey balaa nga génn. relation ak kenn dootu ko lam-laamee tey lan ngay wax ci bés bi. Euh, kontaan. ndox olof njaay nanaan naan. askanu géwal boo ci teralee benn géwal. teral nga géwal yëpp. waaye Casamance benn joolaa boo fa bàkk bàkk nga joolaa yëpp ku weddi laa sonko sonkoy jomaay. yow da sama rak di sama xarit. dëgg la dañoo nag baax na. Uh-huh. mi ngi mel ngeen a géej gi am na ndox. dëgg di nit te ki gën jikkoo moo la gën. muy nit ku baax Ndeye mari Ndiaye la may xoole Ndeye mari ma ko présenté moo ma yóbbu ba biir këram boobu ba nga dëkk yoof ànd ak man li ma jooy sax maa ko xam ndax dama ne bu Ndeye mari Ndiaye dundoon tey fu mu ne fu mu càpp rek ma càpp fa waaye xëy na lii moo neex yàlla waaye Viviane bàyyiwul demb te ku bàyyi démb rek sa ba jagoon muy nit ku baax bëgg nag ñi muy sëyal bëgg sëyukaayam mu ndey soxna day sëy na bu nduur mu baax mi taaw bi njëkk a bu njëkk a baax mm-hmm. yuusu dama ko jëlale Ablaye daara mbaar maa jot daara mbaar ma taat daara mbaar ma jëma yaa seen daaw mi ci loolu baa xam nga ne chaque tabaski mu jox ma sama xar tabaski maaraajee moo ma ko jox wallahi azim yuusu daal dañ koy ñaanal yal na gudd fan mm-hmm. waaye Viviane mm. yal na ko yàlla bàyyi ak doomam yi ñaaram yi mooy lii du fiy toj nga naan ma dëbb na dëkk bi loolu koy wax bu yàqu la mm. loolu biti la fanaan mm-hmm. ku ànd ak say mbokk ànd ak jàmbur jàmbur boobu ñuy waxtaan dana may ñu ñaari minutes barke Serigne Bamba toj ñu fii. Mhm. billaahi wallaahi taalaay. Mhm. yan na yeggale. macha allah doomam bii. Mhm. yan na ko yàlla teel boppam. yan na ko yàlla teel boppam bi dafa teel mais dara boo baaxee bari coow waaye boo bonee doo am coow. fan la ñuy fekk ñu bon ñu ñu leen tudd gisoo kenn ku am tur dong la ñu tudd waaye ku am tur kenn du la tudd. nan bàyyi tëkkale bu ñuy tëkkale ñaar am na ku man. jigi daal. yal na ko yàlla may jàmm. macha allah bàyyi ko bàyyi ko ñëpp. bàyyi ko ay salaam ci loo nekk. tey li nga sañse lan la. <laughs> sa relation ak Viviane ñëpp xam nañ ko. Ah. sa ah, man damaa ñëw rek teewal ah. fi patriote yëpp. Hmm. ñëw fekk si affaire bi. Hmm. Adama moom man bi ma ko xamee mat na fukki at. Hmm. loolu yàgg na du tey. ah te ñun en dehors politique nag ay citoyen lañ. ay nitu diine lañ. ba pare yàlla dogal ñu xamanteeg Sénégal yi waxuma xam ñëpp waaye xam ñu bari. di jëflanteeg ñëpp. Mm-hmm. malgré bokkuñu position ku ne xam na fi mu féete woon ñun ñëpp xam fi ñu féete. Mm-hmm. mais loolu am na lu ko ëpp doole mooy le Sénégal le Sénégal yaa ngi may dégg bu baax le Sénégal tey Sénégal moo moo ñu fi dajale mu nekk sama frair vraiment mm-hmm. euh, buñ koy may soxna famille Ndour buuba Bouba it ma xam ko bu baax. kon sama tew fi dafa jaal mhm. alors en tant que imam tey bés bi dafa ala daw mais parce que dañuy faral wax naan bu ñuy takk soxna mu taw loolu islam am na lu mu ci wax soxna moom mhm. bu ñu koy takk dañ ko war a siiwal ba nit ñëpp jot boo gisee arab yi ñoom dañoo fonk céet waaw li ñuy def daal mu gudd mu gàtt yàlla na sëy bi yàlla na ci yàlla def barke mhm. yàlla jubóole leen te nawet bi nekk nawetu jàmm tey na ñëw ma sax pour kàddu vraiment yéen journaliste dama ci bari ay bëgguma ngeen may tàllal micro mooy romb. <laughs> mais maa ngi nuyu patriote yëpp. macha